fii diwaani moo ko yoroon yi jaanoo xaadiroog na jaaratulaa jëf ñi ngi ñuy seetaan ñu ngi leen di gërëm suñu gan ci émission Modou Modou Bercy émission bi nag ñu wuti ci suñu jigéen nday si xam ngeen nii mi ngi Sénégal Bercy Touba Argentine TV mi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay sëñ Gora maa ngi leen di fay bu baax a baax. bi ñu lay présenté ñu ngi naan la Bercy yaakaar naa bu ñu juumul am na benn réew bu nekk France benn dëkk bu tudd noonu loolu moo indi tur bi wala loolu mooy sa tur dëgg-dëgg. déedéet tudduma Bercy nag mais Bercy tur la sama yaay Fat Baro maa ngi koy nuyu tamit de passage. Euh, maamam moo tudd Bercy Ndoye mais man sama mu turam tur boobu neex ko mu may surnoowee Bercy mais man Xadi laa tudd Xadi Njaay aawa baayam Xadi Njaay laa tudd jaajëf euh, émission Modou Modou dañ lay laaj lu aju ci sa dundin ci wàllum faatu faatu noonu laa ko mën a waxee waaye balay booba daañu xam kan mooy Bercy fan la jot a jaar ci ay euh, jàngam Sénégal ak it bi muy nekk ndaw lu mu dundoon dëgg-dëgg waaw Bercy nag euh, euh, Kaolack la dëkk maa ngi dëkk euh, Sénégal Kaolack laa dëkk maa ngi ah at moom duñ ko wax <laughs> ci télé waaye nag mag laa duma mag waaye Kaolack laa dëkk fa nekk ak sama yaay ak sama tante Yarma Euh, ñu koy wax Ndey Borso ak Maxtaar Ndaw maa ngi leen nuyu ñoom tamit bu baax a baax. jot nga def école jàng ci lu sori ba am ay lijaasa wala it ci jàngu dara. waaw jàng naa mais dem naa ba quatrième secondaire nag fa laa bàyyee fa laa bàyyee. nga bàyyi. waaw teel a bëgg liggéey rek teel a bëgg liggéey rek yàgg def sama xel ci ci ay affaire salon ci ay affaire commerce et looloo tax ma teel a bàyyi jàng mais waaw. mais bi ma bàyyee dama dem dugg salon sama tante daf ma yóbbu ma jàngi salon Kaolack bi ma nekkee foofu def naa fa un an après ma dem dakaar en deux bi ma demee ci sama doo sama grand frère mu yor ma Dakar vraiment yor bu rafet ñoom tamit ñu dugal ma foofu salon ma fay liggéey centenaire waaw fa laa liggéey 2002 ba presque 2005 di teewut ci biir liggéey salon bi yëpp dama doon baana baana di business di dem ay Mali di dem ay Gambie ñi may seetaan dëkk Kaolack te xam ma xam nañ bu baax li may wax yàgg naa commerce wax dëgg yàlla. am formation ci côté salon ba nekk ci gérante wala yi danga nekkoon koo xam ni man la fa jëloon ni rek ngay liggéey. waaw noo nekk ma woon gérante nag mais presque salon yi bi may dem yëpp fekkoon na ma mën ndax dama yàgg bëgg ay létt waaw damaa yàgg bëgg létt bu may dem nii yëpp sama daanaka mën létt ak yooyu laa fa yóbbaale mais nekk ma woon gérante parce que xawara ko fa woon ndax damaa xawla woon am patience nag waaye ñaar salon yi ma fa dem yëpp vraiment ñu doon ay nit ñu baax kenn ki maam biigee la Kaolack euh, keneen ki yi rayaana Dakar vraiment ñu nit ñu baax dëgg yàlla tey ñu ngi gis nga nekk faatu faatu ci Argentine condition yi nga fi tudd yëpp bari na ñooñu bu ñu ko tëyee ñu bëgg a génn fenn dañuy bëgg a toog Sénégal nga def ci wàllu salon donc baana baana di dem Mali ak a ñëw lu tax bis tey nga jóg ni da ngay nekk faatu faatu comme ça ñëw fi Argentine. waa loolu dëgg la dinaa ci sawar a tontu sëñ a parce que musuma yàgg bëgg tukki parce que sama morom yi ma dëkkaloon sama cousin ak sama cousine yëpp macha allah xawoon nañoo sakkan kër gi mais yàlla dafa dogal ñoom ñëpp ñu dem. biñ demee tamit taxuloon tukki nekk euh, sama xel mais en mille 2008 daal la tukki nekk sama xel et sama benn xarit bu ñuy wax Xalifa Ndiaye ne ma ah te ngaa dem Argentine parce que foofu baax na affaire yooyu daal daa di ma siy wax ay kii ma ne ko naa dem essayer. bi ngay bi ngay bi ngay préféré pour tukki boobu amagoo borom kër fii nga amee borom kër wala. non non bi may tukki boobu aw ma woon borom kër borom kër maa ngi ko am en 2013. maa ngi koy nuyu moom it bu baax ndax di ci jéggalu parce que si moom laa waroon a njëkkee eh, moom deux laa la lañ laa am borom kër muy nit ku baax wax dëgg yàlla nit ku ma bëgg nit ku ma yërëm nit ku may jàppale nag vraiment waaw waaw. au passage ñu ngi koy nuyu mën nañu dellu ci au bi ngay ñëw Argentine nekk jigéen. Euh, jóg takkasogal yi si jëm ci réew boo xam ni bu sori la ama doo fi gis yaay doo fi gis baay gisoo fi mag rak borom kër comme ça mën nga ñu nettali boobu naka nga ko doon dundee. waaw ah naturellement rek sëñ góora parce que wax dëgg yàlla dundeewu ma ko nen parce que dama mel ne rek ku ku ku nekk Sénégal parce que bi ma ñëwee sama càmmiñ yi ma yàlla booleel mooy ñoom Mout Seen ak ñoom Baymor ba ma ñëw Baymor lañ ma booleel ak Mout Seen ñoom Aliou Dieng. muy waa Floresta yi du nit ñu baax ma def leen comme samay frères yu ma bokkal ndey ak baay ñoom it noonu wax dëgg yàlla ñuy dund comme Sénégal man gisuma woon différence li ma doon dund ak Sénégal ndax ñun liggéey la ñu xam wàcc jaamu yàlla jeex na loolu la ñu xam loolu laa nekk ak ñoom ba jëkkër fekk ma ma sëy nekk ak ñoom ba tey ci jàmm wax dëgg yàlla waaw moo tax gisuma si différence daal waaw. ñu ëpp bu ñu nekkee Sénégal xemmemteef bi ci wàllum tukki bu ñu ñëwee dañuy décroché wu bi ngay dégg tukki ak it bi nga ñëwee tey ndax li nga doon foog doon gis ñi nga xam ne dañuy jógee bitim réew bu ñu la ñuy mel wala boo leen seetaanee ci ay photo am xemmemteef ci tukki bi nga gisee bi nga ñëwee da gis loolu 100 pour cent wala. waaw bu may doogee ñëw nag xam nga nag man damaa nekk nit koo xam ne moom bu ma nekkee si dara rek dama siy dem ba jeex bi ma fiy ñëw moom bi ñu ma waxee waxu Argentine may départ di ñëw ak bi ma ñëwee li ma fi fekk bokkul waaye nag waaw waaw parce que waaw waaw parce que bi ma fiy ñëw 2008 laa fi ñëw euh, trajet bi doyoon na waar niñ ma ko waxee woon ak ni mu amee bokkul waaw dañ ma ne woon rek da ngay ñëw ba Brésil soo ñëwee da ngay jël kaar rek mu mel ne nga jógee Sénégal jëm Dakar nga jóge jógee euh, Kaolack jëm dakaar rek c'est simple xam nga kon bu ma déggee nekkul da nga envisager directement wàcc Brésil door a ñëw Argentine da nga jaar ci yoonu suuf bi nga xam ne moom la ñuy dégg ni ñu bari ci lañ jaar. waaw mais xam nga rek xam nga rek yu ci bëree bëri moom nekkul lu ñuy wax euh, fii xam nga xam nga affaire kii moom dafa doy waar pour ñeneen ñi ñëw ak yooyu mais tukki moom côté yépp a si bokk yem muy Europe muy Espagne muy Maroc fu mu munti doon rek am na secret bu nekk si suuf mais secret boobu nag su ma sañoon du ma ko wax. dama koy bàyyee rek. mënoo ko baax ñi nga xam ne ñëwagul bu fekkee ni it nekk na secret boo xam ni ama doonul boo xam ni mooy condition yu baax ñoom ñu xam ne rek fii moom tukki yombul ñu toog. waaw mais xam nga secret boobu du ko wax parce que soo ko waxee fii ñi bëggoon a ñëw tey euh, mën nañoo dégg Bercy wax ñu découragé wala ñeneen déggu ko encore ki ñu couragé man daal ku fii ku tukki moom ku mu nekk sa wërsëg rek maa ngi la ñaanal nga ñëw si jàmm mais euh, yomb na mais yombul yëfi yëfi góor la daal moom yëfi góor dëgg la waaw. waaw xam nga góor moom góor la rek am na góor ñoo xam ne <laughs> waa góor moom mën na nekk ci jigéen mën na nekk ci góor am na jigéen ñoo xam ne ñoo mën góor am na góor ñoo xam ne moom jigéen na leen tane waaw loolu la waaw yëfi góor la rek góor góorlu rek. wax nga sa jafe-jafe ci wàllu tranché gi ni nga accès yaa ngi koy wax bi nga duggee nag ci réew ba commencé jaay wala commencé beneen liggéey foofu ndax yomboon na yaa ngi doon gañe 100 pour cent wala it jot nga dund lu métti avant tey nii nii. waaw xam nga moom tout début est difficile wax dëgg yàlla ci commencement bi méttiwul métti woon na du moins métti na trop mais ñun moom ay taalibe lañ dañuy gérer rek waaw bu méttee mën na bu méttee nit du ko xam bu ñun moom mu neex ak mu métti yëpp la ñeemale waaw muñ nañ ko muñ a muñ ba fi mu ne nii ba tey jii sax mën naa métti it ñu koy muñ ba nit du ko xam sant yàlla rek xam nga ñun moom ay jaam lañ nit moom da ngay sant yàlla foo toll tey góorgóorlu en tout cas daal li nga xam ne nii moom moo ñu fi indi muy liggéey ñoo ngi ci waaw sama boroom kër nag bi ñu xamante yàgg na yàgg na parce que ñoo bokk koñ Kaolack yàgg nañ man ak moom ñi ma xam Kaolack xamee nañ maak ak moom dëgg yàlla yàgg nañ trop ba yàlla dogal xam nga sëy moom yàlla moo koy tudd. yàgg nga mooy yàgg ngeen nekk Sénégal bëggante. nañu nekk Sénégal bëggante suñu mbokk yëpp xamanteek yëpp et waaw ba yàlla dogal sëy xamewuma ko fii moom it xamewuma fii moom sax au contraire man maa ko indi fii parce que Afrique du Sud la nekkoon yàgg nañ daal moom sama frère la sax nag mën naa wax waaw sama lépp la vraiment. sëy fii nekk Argentine ak bu Sénégal am na waree tuuti tuuti. benn la rek sëy moom pour man boog sëy moom sëy la rek. wax dëgg yàlla sëy moom sëy la rek parce que say waajur ak yëpp moom benn rek lañ lay yebee fonkal sa borom kër bu la teree nga bàyyi lum la wax nga def ko kon pour man benn la parce que liñ lay wax boo nekkee Sénégal moom lañ lay wax boo nekkee feneen sëy moom sëy la rek. mais ngeen fekk si ni ñuy doxalee mën naa wax ni bu ñu àndee seen borom kër xëy la lekk seen borom kër mooy dugg ci waañ wi loolu lay tekki ni ci jikko yooyu ngeen di jël wala it daf bu ngeen ba àndee liggéey boo ñëwee di nekk ci waañ bi comme ni ñu meen jigéen senegal ci waañ bi. non non loolu non ñi ñu nekk fii kay duñ leen royuñu leen ci ci ci ci loolu waaw mais nag dafa di xam nga àll bi moom bokkut ak Sénégal mais jikko yooyu moom ñenn ñi ñoo ko yor ñeneen ñu yoruñu ko am na góor ñoo xam ne moom dañuy am yërmande bu seen jabar jàppee fii loolu ba Sénégal sax am na fa ñoom ñu jàpp fii am na ñoo xam ne tamit ñoom kiiwuñu loolu waaw loolu moom aajowul Sénégal wala aajowul fii léegi ñëpp koy dund am na góor léegi góor ak jigéen yëpp jigéen day jàpp fii góor jàpp fii waaw mais am na góor ñoo xam ne ñoom duñ def loolu mais euh, am na góor ñu koy def loo loolu fépp la. bi ñu ñëwagul ci réew yi di seetaan ay télévision yoo xam ni dañuy def ay émission moodu moodu rajo yi ci ñi leen fi njëkk nekk ay faatu faatu gis nañu ñu bari bu ñu amee seen borom kër dem nekk fa ak ñoom tuuti seen condition xaw a baax li ñuy def mooy tapas ko pour nekk seen liberté ndax loolu mi ngi am fii jigéen ñi Argentine yi. non macha allah jigéen ñi ma fi gis man xam leen parce que. yàgg naa fi mais yàgguma fi deux 2008 laa fi ñëw ah man de ay jéeg yu baax laa fi gis jéeg yu yërëm seeni borom kër yu respecté seeni borom kër yu am yu suturaal seeni borom kër man loolu laa fi gis wax dëgg am ngeen seen bopp am ngeen relation bu baax bu ñu xoolee comme yi ma tudd léegi Italie France la leen gis ci Facebook bi ñoo xam ne sax dañuy xuloonte kenn ku ne di wax sa moroom lu ñaaw fi yéen seen diggante naka la ah ñun moom loolu moom gisuma ko fi te yàlla bu fi amit man de gisaguma ko fi wax dëgg yàlla fii moom fii gise bi sax taxu koo yomb ñun gise bi ñuy gise daanaka ay événement lay doon ay màggal wala ay gàmmu ñun ci lañuy gise lu ci bari màggal gàmmu te dañuy yàkkamtee gise waaw bu dul loolu amuñu jot kenn ku ci nekk yaa ngi sa côté di liggéey boo wàccee yaa ngi toppatoo sa kër toppatoo sa alaaji man de loolu laa fi gis bi suma fi leneen nag vraiment dëgg yàlla ñu ñëw ci loo xam ne ndax am ngeen kuréel boo xam ne moo leen lëkkale association wala loo xam ne it ab mbootaay la boo xam ne moo lëkkale jigéen ñu Argentine yi ak nombre bi ñaata la defe naa nekk nga koo xam ni defe naa wax nañ ma sax ni yow yaay responsable yaay seen njiit fii nii ci Argentine waaw am nañ fi am nañ fi nag am nañ fi association am nañ fi association moom am nañ fi association yow yaa ko jiite waaw waaw mooy projet lu ko tax a jóg ci waaw association moom xam nga amagul projet amagul dara parce que nga ko commencé léegi yàggul defaguñu dara sax nag defaguñu dara waaw ñu ngi ci ñu ngi waxtaan ñu ngi ñu ngi xool nu ñuy def ak yooyu mais bu ñu commencé def ay projet yu ci baree bari rek bu soobee yàlla di nga ko xam mais kii yëguñ ci lu baree bari waa parce que mi ngi doog a commencé. Euh, ñu gis ni fii ab lim bu takku mi ngi fii yàgg nañu dégg ay jooy ci côté lu jëm ci ay passeport yu jeex yàgg-yàgg. amul saafara lu jëm ci ay côté ambassade amu fii lu jëmoon ci carte consulaire yàggul dara madame bi ñëw na yow yaa ko bokkoon nga ci ñu ko teere woon ambassade fa la neex aéroport euh, tukkee mu nemmi ko boobu bi nga xam moom la def Sénégal yow ban jàngat nga ci am ak it jàpp nga ni lu baax la pour yéen. waaw wax dëgg yàlla moom aussi ñu ngi koy remercier muy madame son excellence Fatou Bintou parce que ñëw na fi man de wax dëgg yàlla bi ma fi ñëwee léegi. 2008 la maa ngi fi def 9 ans mais mosuma fee gis autorité ñëw fii te moom defagul un an Brésil mais euh, moom sagal nañu ndax euh, liñ ko jotoon a jooytu ñun problème mu passeport la njëkkoon a am mais saafara na ko moom problème euh, si at bii di 2017 ñaari commission ñëw na fi passeport ñu defaral leen seen passeport ci ñi amoon problème mu passeport bañ jot seen passeport kon loolu aussi dañ ko ciy remercier bu baax a baax mu tamit dagg yitteem yëpp ñëw seet seetsi ñu presque 4 jours am nag ñun tamit ñu ñu wax ko sunu soxla wax ko li nga xamante ne nii moom la ñu dikk loolu la ñu bëgg daal mooy suñu bëgg-bëgg muy ci ci ci ci ci ci kii yëpp waaw mu mu xelal ñu si surtout mën nañ ci dellu bu baax lan ngeen bëgg maam lu ngeen ko lu waa xam nga tamit bu fekkee da ngaa bëgg dara demandé ko te sotteegul doo ko wax. xam nga bu fi bu bu lu sotti bi laa mën a wax mooy passeport yi mais li sotteegul mënuma koo wax ndax xam nga cat moo tax problème mu cat moo tax mais li sotti mooy problème mu passeport yi mën nañ ko wax waaye leneen li ci des moom comme sotteegul euh, yoo xam ne nii ñu moom te moom it digguñu moom dafa wax li mu mën muy nit ku dëggu li ma gis ci moom nit ko wax nit ku baax daal ñu ngi koy gërëm di ko remercier bu baax a baax. ñi nga xam ni bëgg nañu ñëw fekk ci seen borom kër temps mooy moom la ñu refee loo leen di wax ndax nekk na loo xam ni yomb na wala it yombul. waaw li ma leen di wax daal mooy yomb na yombul yëf yi moom foo nekk rek góorlu moom man moom ki ñëw tey ak kii waaj a ñëw ak benn bi man duma décourager kenn waaw parce que affaire yi moom yombul moom waaw ñafe rek waaw ñafe liggéey liggéey rek teg ko ci waaw liggéey rek teg ko ci loolu moom moom moo la ciy génnee. waaw góor-góor te ko tamit waaye boo ñëwee ne ah xeeb ne ah man de lii est-ce que dinaa ci mën a lii ak yi man de yooyu yëpp duma ko dund bañ a xeeb dara waaw boo xëyee dem liggéey nekk ci li la fi indi rek yàlla baax na loolu laa leen di conseiller ku bëgg a ñëw te sa wërsëg nekk fi mën ngaa ñëw ku nekk Sénégal tamit am fa sa liggéey bu baax moom conseiller wu ma la aussi ngay bàyyi sa liggéey wala ngay jaay sa liggéey naan yaa ngi ñëw waaw mais ku fa kiiwul tamit bu la neexee nga ñëw tenter sa chance xam nga rek boo ñëwee tamit nga góor góorlu rek teg ko ci liggéey yàlla baax na. ñu gërëm la xam naa daañu ñëw ci loo xam ni dana ñeel tolluwaayu réew mi ak it euh, bu njëkk fu la neexoon lal fi ne loolu lépp soppeeku na. 90 pour cent ay jaaykat lañu waaye seen jàmm bëriwul daanaka dàqante police yi loo dugg semaine ci déggoo lim bu takku nii jàpp nañ leen yóbbu police ban message ngay def ci loolu sa mbokk yi nga xam ni say say say say góor lañu ama boo waxee daañu la dégg. waaw sama waaw loolu moom dëgg la samay càmmiñ lañ wax dëgg yàlla ma ñeewantal leen loolu nag ñeewantal leen trop trop ndax dafa métti parce que li ñuy dund yenn ñi lu ci baree bari ñun jaar nañ ci waaye ñu ñu ñu def prudence rek xam nga def prudence rek parce que mun na leen a yàqal lu baree baree bari. ñuy def ndànk parce que léegi dëkk bi dafa doy waar ni mel léegi waaw bàyyi violence bi waaw parce que ñun waaw dëkk jàmbur lañ nekk loo xam ne nii tey jii ñun duñ ko def Sénégal waruñoo ñëw di ko def fii te fii tamit comme ñun ñoom dañoo may lu lu wax dëgg yàlla man li ma gis ci ñoom mooy euh, bu doon yeneen dëkk yi yi la dina gën a métti mais comme fii ci bëree bëri commencé guñ koo def ay rapatrié yeeg yooyu ñu bañ a xalaat ne fii duñu yóbboo yeeg yi rek mën na leen a yàqal loo xam ne ñoom duñ ko xam sax xam nga mais damay jàpp ne xëy na ay xelu xale lañ moo leen di jàpp parce que ñi ma gis ñi ciy def ñëpp ay xale lañ parce que léegi ñi mujjee ñëw nii ay xale lañ xam nga ay xale ñoo si ëpp ma leen di wax ñu def ndànk rek te dal bu ñu leen waxee ne leen laal leen ñu laal li jël seen bagaa dem bu ñu jëlee ñu bàyyee leen ko moo gën xeex xeex ak policier moom wax dëgg yàlla baaxul dañ leen di jël seen i empreinte fi ne nii ñoom du ñu gis kii bi mais après lañ koy gis man loolu laa leen di lancé euh, di leen ci jéggalu nag man bu ma ci bu ma bu ci kenn gis ne dama laa gaañ wala dama laa def dara samay rakk dong ak samay mag samay rakk sax ñoo ci ëpp parce que ay xale yu ndaw lañ ñu def ndànk daal ndax ñun dañ leen a bëgg ku leen laal dañ ñuy laal xam nga loolu daal laa leen di lancé ñu góorlu bu baax yàlla baax na waaw. Betty si lu ko gën a neex ci àddinaam lan la gën a bëgg ci àddinaam. man lu ma gën a bëgg lu demee nan ah li ma gën a bëgg maanaam ah damay bañ rek ah man daal liggéey rek waaw wér gi yaram liggéey waaw wér gi waa ji dafa mel da ko denc dangay bañ mu génn ci image bi xam naa bu ko defee mbokk soxna yi di ko xool wala <laughs> non non moom denc ma ko sax dafa génn dafa génn moom dafa génn mais xam naa léegi mu ñëw incha allah émission bi jax na ñu ngi lay gërëm bu baax ñu jox la nga tàggatoo ak it naka nga gisee scène bi nga xam ne moo fi nekk Touba Argentine TV ak yéen. waaw góor man nag maa ngi leen di gërëm yéen bu baax a baax xam nga lii moom man nanguwuma ko woon sax mais yow dangaa ñëw jóge Brésil ñëw yàlla boole maa ak yow koo dajeel nga ne ko biir sama jigéen la ndax tamit xëy na jot bareew bareetul looloo tax ma siy jàpp waaye. sax du loo xam ne nii dama koy nangul kenn ndax mais yéen dangeen doon sama càmmiñ ma yàgg ma bokk ci sax nag ci tuubaa Argentine TV di leen ñaanal nag euh, muy law a law law ñuy wax ay tuubaa Italie tuubaa Touba Europe Touba Sénégal ak fépp télé yi law di law loolu laa leen di ñaanal sama biir xol man ñi fi nekk ñëpp di moodu moodu maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ay teraanga yu baree baree bari ci barke Seydina Mohamed lépp lu fi nit di wut rek yàlla ko yàlla defal ndax fii ñu fi nekk ñëpp samay càmmiñ samay mag samay rak ñoo fi nekk maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp nag di baalu àq ñëpp dama ñëpp baal àq wasalaam ñu gërëm ko bu baax mu nekkoon suñu gan bér si ñi ñu sant ko bu baax wax dëgg yàlla ci jàppandal gi da ngeen ko loolu nekkul lu muy def waaye may na ko Touba Argentine TV loolu suñu suñu mbégte la ñu ngi lay ci sant bu baax euh, di la gërëm di la ñaanal tawfeex ñaanal la nga yàgg ak sa waay jàmm ji yokku yàlla defal la teraanga defal la sutura gërëm Pape ci caméra bi fegoo ak Abdoulaye présentation bi a sekk ñu ngi leen di gërëm baax asalaamaaleykum wa rahmatullah